cette situation est-ce que le premier ministre aussi moo war a nekk au-dessus de tout ça jël ses responsabilités dama ne premier ministre bu nekk bu ñu la falee war ngaa yàkkamti ñu jox la onction parlementaire mhm. loolu mooy ki la fal falu la parce que yaay xaritam daf la fal parce que yow la war a doon parce que la majorité aujourd'hui qui représente les Sénégalais mooy parlement bi mhm. qu'on le veuille ou pas ba bañ koy dissoudre ba ba ñu am beneen parlement ñi fi nekk tey ñooy la voix quelle que soit par ailleurs critique bu ñu leen mun def ñoom la mais nga duut foog onction onction boobu mun ko ko am même si tu minoritaire mhm. c'est ça dépend de la démarche ci ay waxtaan la ci ay couloir la ci ay gisee la ci ay compromis mhm. politique la parce que fii ba le 13 septembre fii ba le 13 septembre gouvernement bi lu mu bëgg il faut que assemblée d'accord ci foofu la compromis yi nekk donc waxtaan ba jubóo comme fii ba le 13 septembre ñoom au moins am na lu ñu bëgg a def fii ba le 13 septembre bu doon seen sago ñu wote fi peut-être des lois bu doon fii ak 13 septembre bu doon seen sago au moins ñu def quelques changements mais mënuñ ko bu fekkee waxtaanuñu ak assemblée nationale bii nga xam ne majoritairement dafa mu nekk de côté de l'opposition et dans ce genre de situation le président de la république est-ce qu'il a son mot à dire parce que am nañu jàpp ne c'est le gardien de la constitution constitution bi moo PM mu ne buñ ko modifié wul du ma dem maanaam c'est mais am nañu interpeller directement le président de la république président bi c'est le garant du fonctionnement régulier des institutions mhm. président bi bu fekkee du par parloo waaw war na mun a wax premier ministre am ne ko da nga war a dem assemblée nationale mhm. président bi war na aussi comme moom tey moo yor majorité bi ndax moom suffrage yi moom moo ko moom moo ko gàddu mun na def dialogue politique moog la majorité parlementaire mën na pourquoi pas bu gëmee ne ña nekkoon foofu comme ni ñu ko doon waxee ay député Macky Sall lañu mu woo le président Macky Sall. Mhm. ne ko grand. parce que wóor na ma ne am na ay fan ay jours grand lañ ko doon wooyee. fan yu mujj avant entre le protocole de de. ak <laughs> la présidentielle le cap. Mhm. ak euh, bi ñuy leen di recevoir palais ba bi ñu leen di installé gëm naa ne bu ñu dajee Macky grand lañ ko doon wax. dama ko gëm rek dama parce que dama. gis lu ñëpp seetlu la climat bi nekkoon na exactement. mais loolu war dañ ci mën a continuer ci par exemple wala président mais ci diggante bi lu bëri xew na aussi. oui euh, li xew fii man gëw ma ne euh, à chaque fois je leur disais que ñoom dootuñu wax dara Macky wala Macky defu leen dara. Mhm. kon kay war nañu mën a au moins même bu leen defoon dara même bu fekkoon ne tey am na ay ñol-ñol war nañu mën a toog discuter ak moom ne ko euh, grand ñun dey situation bi xew assemblée bu doon si sago nga wax ci. ne serait-ce que parce que ce qu'il auparavant en tant qu'ancien président la République mhm. war na mën a yëkkati kàddu wax ci je me rappelle bien dañ daan toog ba mu yàgg ñuy interpeller Abdou Diouf naan ko war naa wax war na cee dugal yëkkati kàddu mhm. parce que moom quand même nekkoon na président boo xam ne bref loolu c'est des démarche que le Sénégalais peut comprendre notre sociologie nous le permet mhm. mais est-ce que président Diomaye Faye am na dayo boobu Ousmane Sonko bëgg a def nangam. mu tere ko ko mu tere ko ko wala mu ne ko lii du fi amee. Mhm. man gëmuguma loolu. il ma xaar ba gis lu mel noonu.